auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal yéen ñëpp jaam te di ko saaku si yéen saa su nekk rek waa alhamdulilah ala kulli xaal ba léegi rek dañuy continuer suñu dars ndax ñu ngi woon ci li taskunu ilayha te sakina boobu ñu xool ne góor rek a soxla bu baax a baax góor comme jigéen mais dafa rawati si góor ñi kon góor ñi dañoo soxla dal te pour ñu dal faaw ñu dem ci jigéen ñi kon mënta ñàkk yàlla dafa bind góor ñi pour jigéen ñi ñu bind jigéen ñi pour góor ñi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna loolu la yàlla wax kon nga gis ne kenn mënta dem bàyyi sa moroom léegi nag pour ñu bañ a dem bàyyi sa morom faaw sëy am sëy moom mënta ñàkk ci nit ki mënta ñàkk soo demee ba nekk majeur nekk mu kàllaf loolu mënta ñàkk ci yow te sakina boobu comme góor ñi dañ koo soxla faaw ñu dem ci jigéen ñu gis ne góor ñi bu ñu dalut des fois dinañ dem ndax li ñuy dund rek lañ mën a wax réalité am si dëkk bi conséquences yi ñuy dund l'expérience ne rien que ce que l'on a Lol kessel mo waral ñu tok di wax def suñu prise de conscience xool ne problème yi dafa bari leena dal bobu non pour nga def ko faaw nga am soxna tas ko nu ilay xaala yalla wax faaw nga am soxna Kun goor ñi may wax bu ñu ragal ngir yalla ak rasul bu len ragal bu len ragal am lu ngeen di ragal wa jabar dafa noppale ba pare dafa neex sha allah dafa neex lamu saf nak ko ko macca ko xam tank duggo ci mëno ko xam te am ño ñoo ni dañ ci yeexa duggu reccu nañ lutax ñu yeexon ci duggu waaw may wax ne sakina boobu boo ko amul danga koy wuti tey ji góor ki bu bu amul bu amul dal boobu may wax jigéen tamit nañ xam di dalal seeni seeni borom kër ndax bu la nit ki taqee tamit te mënoo koo dalal tamit mook zéro mm-hmm. yam bu ko defee dal boobu noonu moom du koy wuti góor leen ñetti la am ah, muy muy muy muy muy biiram biiram la am ak bànneexam ak jàmmam ñetti yooyu su ko dee am ci yow du wuti leneen day doyal sëkk du wuti leneen bu ñëwee nga koy jox mu lekk ba suur d naan ba màndi biiram fees na bu ko defee nga jàmmal ko may ko jàmm bañ faa nekk di ko perturber bu bëggee nelaw nga bàyyi ko mu nelaw su bëggee reposé wu nga bàyyi ko mu reposer yooyu yëpp da cee am ba ñu indi coow ba ñu indi bruit soo ko dee defal di ko may jàmm du dem fenn ba pare tamit soxlaa bànneex nga jox ko ko ba mu doyal sëkk tuuti leneen mais su ñëwee yaa ngi xëcc fi yaa ngi yuuxu fi yaa ngi bruit yaa ngi def kenn xamul doo togg lu neex doo yàq neex ah di sonal nit wax ju bari kooku du yàqamtee ñëw ndax gis nañ ñoo xam ne ni tey jii nii nii nii nii am amuñu seeni kër ci seeni soxna lu leen neex moo tax suñu wàccee fu nekk dinañ fa jaar di toltolaan des fois dañuy wàcc dugg ci resto yi des fois ñu dem ci auberge yi am na bu baax li may wax yéen ñëpp xam ngeen des fois ñu dem ñu ñu dem ci hôtel yi tëdd fa donte defuñu fa bon doom te wuñu fa lu bon ña ngay dem pour lan am dal googu noonu pour lan sonn gi ñuy sonn ñu mën a noppalu même buñ fa deful leneen mais dal gi noonu noonu sakina boobu dañ koy wëri ne bakkan jàmm la laaj ko am dëggantaan kumu yow di yow ken bugul ko la sona ha jigen sax bu lu la sa borom keur bëggee sona da ngay ñaan ba dem tok sa keur wala nga ñaan conseil dem togi kon ku nek sa lig sa mémoire dafa wara and ak dal ha bakkan jàmm la laaj ko am nima ko wax kon nañu dalal borom keur yi bu baakha baax tay ji am na ñoo ña ngay dem di wut di wut ben ben wut ben ko ngeen baal ma si kàddu gi wut benn benn benn jànq benn gel hmm, dem di di di joxanteeg moom rendez bu feneen pour la pour wàcce dal googu nekk ci moom wala su ko deful ak moom dara sax na toog kooku di ko raay hmm, di ko wax bu neex mu koy dégg bu ko defee lépp lu mu nekkoon coono si moom dina wàcc wala mu dem tëdd fa benn deux heures de temps nelaw yeewu laal ndox ñu defal ko mu lekk ba suur mu naan ba maani bari ñibbi këram bari na fi bari na ñoo xam ne ni kër xarit la ñuy jaant ndax lan seeni soxna ñoo leen mayul jàmm ca kër ga ñu fay dem pour rek dallu hmm? pour rek dallu wala ñuy àbb ay seen caabi caabi morom caabi néegu morom bu dee kooku célibataire la yow marié nga dem di ko àbb néegam dem tëddi fa pour dallu loolu yëpp ay réalité yu fi am la kon dal googu noonu góor ñi dañ koo soxla gis nga boo ko defalul tam mu wuti ko feneen sa doom sax boo ko dee jàpp chaque jour di ko mbéj fii di dóor fii di xëcc fii di sànni fii bu la jubee day daw kooku la ki ngay kiy ñëw chaque jour nga koy may tàngal kooku chaque jour day sawar a ñëw li ma la doon wax bu baax soo amee sa sa xarit sax mu am doom ngay dem këram rek di ko seeti ngay may xale bi chaque jour tàngal nga koy may weccet day yàkkamti nga ñëw futti heure boo ñëwee dina la nuyu dina daw gàttandu la par rapport ak ki nga xam da ngay ñëw di ñàngal ci kanamam wala nga naan sax doom ji dafa nàngam dafa sàngam di ko caw ay bant bale kooku du sawar nga ñëw fa te boo ñëwee dalay daw noonu kese la dem góor ak xale ñoo yem dañ koy wax kon boobu nax leen rek dee leen ko neng nengal góor ñi ay bébé la ñu dee leen neng nengal seeni borom kër ku ci bañ am lu la metti rek dee ko neexal waaw góor ñi tamit ñu bañ a jafeel bañ a diisal tamit yombalal jigéen ñi bu baax a baax incha allah su ko defee lépp dina yomb ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon dafa mënta ñaax ci nit ki rek kon nit ki faaw mu koy am waaw kon nañu yomb sëy yi bu baax a baax ñuy ñaan ñëpp jàmm wa axiru daawaana an alhamdulilahi